noo tudd booy. Mamadou. ah Mama Mamadou. Kanté. affaire naka la demee. naka la demee. dem ay suba tey damay yee six heures matin ma indi ko fii. six heures matin ma indi ko fii. amagoni six heures matin mocca mm-hmm. ko foofu noonu nagi boo si kanam si si mag bi woo mu ne kaa jël si mu jël mu dem jël si ko foofu noonu mu ñëw si mag mu ne léegi léegi xaar ma dem tëdd boo si kanam yàpp ba dañuy après nga yeewu léegi balaa loolu mu toog boo si kanam sama mag bi dugg si biir benn ñëw mu mu ubbi buntu bi rek man yor sa papa dayen ma ne ko noonu du dëgg mu ubbi buntu bi dafa daanu dafa daanu moo tax it daanaka mi ngi teew buum bi foofu noonu buum ko buum bi.